وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واسترشد برشده إلى يوم الدين إخوة الإيمان نحييكم جميعا بالتحية الإسلامي ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu nuyu mbokk jullit yépp di leen ziyaara di leen ndokkeelaat ci ajjuma ji waaye jël nuyoo bi ak ziyaar bi jiital ci kilifa diine yi ñi nga xam ni dañu participer ci mission sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi nee na ku bëgg jappalé jàppale nga xam benn aaya boo xam ne boo mu jëriñ nit wala mu jëriñ peuple wax ko farata la ci kër tariixa yi ci Sénégal gi yépp nak, ndax tariixa mooy yoon nit mën naa am ñaari nit ñetti nit teewul yor na tariixa tariixa mooy yoon ci kër taraix yépp ñi nga xam ni macha allahu taala yaakaar nañ leen ci diine ji te yaakaare leen xam-xam waaye yaakaare leen tawxid nuyu kilifa aada yi ñi nga xam ni ñoo ŋànk réew mi fa tabarakallahu suñ ci tuddee son excellence président monsieur Macky Sall mi nga xam ne yàlla ko teg ci bopp réew mi ci wàllu aada Euh, ci wàllu administration bokk ñu baal ma mu yilif Sénégal gi yépp waaye nag kilifteef dafa metti ñu koy ñaanal bu baax a baax yan bi nga xam ni yàlla ko ko yan yàlla ci yàlla def tawfiix ba bu ëllëgee suñu koy entendre ci yan boobu du ci am gatch di ñaanal bu baax comme ni mako waxe kilifa diine fa tabarakallah bu ñu jëlé sëñ muntaha bashiru mbacke mi nga xam ni moo fi togal sëriñ Touba jël sëriñ babakar Si Mansour mu yobale ñi ci dess ñepp fa tabarakallah a ah, ñëwaat nañu ak seen émission bi nga xam ni xam sa diine waxtaat waxtaan sunu wàllu diine sunu wàllu àdduna tey nag dañoo ñëw pour waxtaanee noonu doomu aadama doomu aadama xam na noon mais xàmmewul noonam xam sa noon baax na torop doomu aadama da ngay xàmmee ki la bëgg ak ki la bañ su ko defee di nga xam fooy teg sa tànk bari na koo naan sama noon sama noon sama noon fekk na du sa noon yàlla am na noon yàlla am na noon képp ku wutali yàlla ndend wutal nga yàlla noon ku noonu jibril noonu nga yàlla noonu la ko yàlla waxee ku noonu mikail noonu nga yàlla ku noonu asrafil noonu nga yàlla waaye yàlla noonu na la yàlla nag nee na ñun suñu noon ñun suñu bopp suñu noon mooy iblis te iblis dafa yaatu iblis du benn jëm ay iblis la képp ku la interdit ci yoonu yàlla rekk tere la yoon bi jàppal ni sa noon la sa noon nag du ki nga nekkal ci kër gi mu yéene la torox sa noon du sa wujj bi sa noon du la iñaane waaye doomu aadama ay noonam yàlla wax na ko ko boo demee sax ci téere mag ñi ñoom dëggal nañu noon yooyu nga xam ni ay adversaire lañu yoo xam ni dañu opposé doomu aadama ànd naa lekk ay force ànd naa lekk ay arme moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama fu muy jar ba mucc jàmbar dëgg moo ko mën yitte dëgg ndax ñeenti noonu yi la wër ibliis wa dunya wa nafs wal hawa nee na a ngi nii def ma fas tëkku muy sama première noonu ma wara jambar lo ak mom neena pare guma àddunaa ngi ni def ma non taxaw di ma préparer bakka ngi ni kazalika def ma non banne a ngi def ma non neena ñenti non yi yep bu ma fan lay jaar ba recc waye yitte deug moy tax nga rëcc moo doomu adama ñent non la am mooy nafsan wa duniyan wa hawan wa shaytaana sëriñ Tuubaa nee na ñeenti noon yooyu fa kulluha xaduhun laa yelin nee na kenn nooyu ci kenn du ci yambar ñeenti noonu yu am doole yoo xam ni dañoo am force yoo xam ni dañoo am armée moo tax in faut que nga am say cumbukaay yu baax yoo xam ni sooy bëreeg ñoom fa tabaarakallaahu di nga leen daan ñu ñëw noon bi ci njëkk mooy al an nafs al ammaara bi suu waxoon naa fi ñaata bakkan moo am waxoon naa ni juróom-ñaari bakkan am na firi woon nañ ko fi nafsul radia nafsul mardia nafsul kaamila nafsul mutmainna firi woon nañ ko fi waaye noon boobu nag boo ko gañee rek gëm naa ni mën ngaa gañee ca des yépp parce que noon bu danger la an nafs inna nafsa la ammaaratun bisu mooy bakkan bi lay digal lu bon doomu aadama dina def lu bon boo ko diagnostiqué seet ba ci ba ci biir ndeysaan xëj na yitteem sax nekkul woon ci def lu bon loolu waaye bakkan bi daf ko ëpp doole bakkan bu lay ëppee doole mooy waral booy jug di dem di defi lu bon da koy yombal waye nak su fekke am xaw xaw nga gor lu tuti neena bakkan bi lay diggal lu bax nak day xex ak bakkan bobu ya ngay juk bëgg dem ca barba bakkan bu bon bi nan la demal rek so deme nga nan ah amul problème ndax fi ñi fi nan bari nañu bakkan bu bax bi nan la ah te nga bàyyi xel sa digganteeg sa borom bar bari nga jëm sangara xaraamal nañ ko sa mbokk ya mën nañ la faa fekk boo fa ñàkkee sa bakkan looy wax boo fa ñàkkee sa ngor looy wax ah sëriñ bi bu ko defee ñoom ñaar ñuy xëccoo ah bakkan bu bon baa ngi tëral ay plan moom pour yëkkati la waaye bakkan bu baax baa ngi xeex ak moom bu ko bakkan bu baax bi daanee nag muy ndimbalu yàlla su ko bakkan bu bon bi daanee nag ndamu ci kawam bu ëllëgee mu jugaat soo demee nag bu mu am doole ci kaw bakkan bu baax bi booba àdduna tukki mooy waral yu bare bare bare ci ay porte yoo xam ne du yu baax du koy tijji pour dugal la ci biir moo tax boo demee sëriñ Touba woy na ko ci tësawudu subbaan ñeenti bakkan yi nga xam ni moom laa la moom laa la limal te mu ni bakkan yooyu li kullin sijjinun wa bakkan boo ci gis nee na am na armée waye amna arme neena damal armem han tejj ko ci bir kasso bi bu ko defé nga meuna muccu waye boko deful do muccu motax bakkan bobu nga xamni moy al am nafsul amara bisu muhammadul bushri woy na ko nee nafsu kattifl in tuhmilu shabal ala hubbi radah wa in taftimu yam neena bakkan ci bëgg lu neex ci bëgg lu yombu ci ragal coono gi nekk ci jaamu yàlla nee na mook xale ñoo ci yem xale bi nga tàmmal nàmp tàmmal ko ween ween rek lay xam nee na boo ko feralee rek ci lu xaram mu fer ci abadan xale bi su defee lu dul yoon simmi yéreem def taatu neen nga tàpp ko ci ba muy bëgg dee mu xam ni lii bu ëllëgee dootu ko defati ca lay jaaree ba ko waaye bu ko essayé benn yoon nga reetaan ko mooy essayé ko ñaari yoon nga reetaan ko bu ci màggee àdduna tukki bu sukkee ci biir bool bi jël loxo bi dawale ko ci ndigg lit te ay magam daggaguñu mu dagg commencé jël affaire yi di ko teg ci kanamam nga domp ko ci ba mu saf boo paree nga won ni ko boo sukkatee ci bool bi sa loxo na yem fi nga xam ni moom nga yem bu ma ko gisati mu àgg ci digg bi mukk nee na éducation boobu ngay def ci xale bi duma ko ci mooy waral bu ëllëgee dina xam fu mu war a lekkee ak fu mu warta lekke naka noonu noonu nga koy toppee di ko toppee noonu di ko toppee noonu ba li nga soxla ci wàllu éducation tarbiya da nga koy am te sax tarbiya yàlla defal na ko doomu aadama kullu mawludun yuladu ala al fitra tarbiya dugg na fa abawaahu yuhawidaana aw yu majjisaani aw yu nasiraana yàlla yonent bi ne képp ku juddu rek judduwaale nga ngëm nee sa sa ñaari jur ñoo koy jëmbat ci yow mu màgg wala ñu ins ko ci yow ñoo lay def yahud ñoo lay def nasaraan ñoo lay def jullit moo tax échec échec dëgg mooy échec sa doom boo échecgee sa doom àdduna tukki ndax doom doom ak baay contrat bu yàlla signé ca kaw ñu wàcc war koo confirmer ci suuf doom ji am na ay responsabilité yu ko war ci baayam baayam am na ay responsabilité yu ko war ci doomam kenn ku ci échec bu ëllëgee sunu borom dana la ko laaj te Seydina Omar jàngale woon ko an yantaqiya ummahu wa yuxsi nasmahu wa yuallimahul kitaab bokk na ca bokk na ca tànnal ko ndey ju baax bokk na ca tuddee ko tur bu baax bokk na ca jàngal ko alxuraan kon maa ngi woon ci bakkan bi nga xam ne mooy an nafsu al amaara bi suu soo demee nag ba daan sa bakkan mën nga am chance dugg ci ñi yàlla di tagg mooy bakkan yooyu nga xam ne bu ëllëgee sunu boroom da ni teral ci teraanga àjjana mooy bakkan yooyu nga xam ne bu ëllëgee bu seen ruux di génn buy wadd rekk yàlla di leen di jox teraanga àjjana nga gis ñu teeru leen ci biir bàmmeel yatuufu alayhim wildaanun muxalladuuna bi akwaabin wa abaarixa wa ka'sin min maahin ay xale yu ndey ndeysaan al wil wildaanul muxalladuun xale yu sell yooyu nga xam ni ñu ngi defaroo ci keppaaru sunu maam Ibrahim teeru la teral la jox la kaas ndox mu neex dalal la ni inna haza kaana lakum jazaan wa kaana saxikum mashkura teraanga lii nag yàlla moo ni woon nañ la ko jox yaa ko liggéey yaa ko mérité loolu nag boo gañee sa bakkan bi lay digal lu bon ca am dugg ci yàlla naan yaa ayyatuha nafsul mutma'inna nit bu ruuxam di wadd bu ruuxam di wadd su naree texe ca kaw lañ koy njëkk yéege ndax malaaka yi dañuy def ay délégation di teeru ruuxam ñu joxante ko ni ruuxu diw moo génn àdduna yeneen malaaka yi tàggante ko ñu ni ko sell la woon bakkan bu set la woon bakkan bu ñime woon jaamu yàlla la woon bakkan bu jàppoon njàmburam la woon waaye bakkan bu daan jëlle la di jéggale ndeysaan ñu teeru ko ci kaw fa yuqi daana woo ñu teeru ko ci kaw di ko dalal ba yenn malaaka yi naan kii moom mooy kan ñu naan diw doomu diw di ko jàllalante ndeysaan moo tax bu ñu wàccee di jël ruuxam tawafathu rusuluna parce que malaaka bi nga xam ne mooy malakul mawti bul jël ruux dafay am ñu ko jàppale du moom kase ndeysaan naan ko yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjixi ila rabbiki radiyatan mardiya fa duxli fii hibaadi wa duxli yow bakkan bu sell bu set bi yow bakkan bu laabiir bi génnal ci yaram uxriji ila rawxin wa rayxaanin wa rabbin xayri adban génnal ci yaram jëm këri yàlla mu teral la ba nga doyal noonu nga koy firee ndax ruux su demee ba war a génn muy tàggatoo ak yaram su amee aljanna war faa dëkk ndeysaan triste tristesse dafay dugg ruux naan ko maa ngay dem yaram naan ko bul dem ruux naan ko ñu ñaanalante rek ba keroog ñuy dajewaat ci àllaaxira ruux dem yaram di jooy ndax bu sañoon ruux du génn ndax sell gu mu selloon ci biir waaye bu dee ruux gu bon gi bu dee yaram gi nga xam ni macha allah fa tabarakallahu kazalika la mu nekk woon baaxul day yàqamti mu génn dañuy xuloo xuloo bu metti ñoom ñaar parce kenn ku ci nekk la nga warloog sa moroom defoo ko moo tax yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjixi ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati ba tey nafsul amaara bi su yar ko ci crise bu duggee crise crise day dal doomu aadama crise économique crise financière comme ni ñu koy waxee bu duggee nga mën ko muñ lu àdduna metti metti metti metti metti metti boo yaree bakkan bi doo dugg ci danger xam nga àdduna bi lu ne nga fiy dégg léegi ñaata nit lañ fi rey ñaata nit ñoo fi xaru ñaata nit ñoo fi weerante seen biir loolu lépp ci bakkan la lalu loolu lépp ci bakkan la lalu ki xaru ñàkk a yar bakkanam a tax mu xaru donte am na ñoo xam ni su xaru daganoo ñu xaru am na ñoo xam ne ñu ngi dund loo xam ni seen biir kër jom rek moo leen ko may am na ñoo xam ne ñu ngi dund loo xam ne ci biir àdduna jom rek ak dégg ndigalu yàlla moo tax ñu toog di xaar seen de ba léegi waaye am na ñoo xam ni nag bu xaru daganoon kenn waxatu ko yonent bi salaa sallam nee na laa taqumu saatu xatta yamul rajul bi xabri rajuli fa yaqul yaa laytani makaanahu nee na àdduna du tukki mukk lu dul nit dafa romb bàmmeelu nit naan aka neexoon ma nekk ci bàmmeel bi waay aka neexoon ma faatu waay mais loolu catastrophe la moo tax bakkan bi yar ko ci bañ a wax lu bon rawatina du ko publier réseaux sociaux yi looloo fi am ñu bari bu ñu téewee sa vidéo xamal la lu bon dañ koy tas ci internet bi àdduna yépp jot ci mu yàq sa der lu mu ci am après doo ci am yàlla doo ci am yeneen ci bi ay duma nga ci am ak ay bàkkaar sëñ bi kii ngay yàq deram tenkoowoo ci njekk ak teranga waxtaan ak moom conseiller ko boo ko mënul nga suturaal ko mais nga yàq deram pour lan alalu àdduna pour lan bakkan pour lan bës ko nit bis dina ñëw nga dugg bàmmeel laytaayoo sa ndey sa ndeyjoor te lépp loo def ci lu bon moo xam siwal nga nit moo xam nga tasaare nga problème nit dinañ la ko fay sa bir bammel su neexee mu neex foofu bu naqaree mu naqari foofu ndax fa man yaxmal misxaala zaratin xayran yara wa may yaxmal misxaala zaratin charran yara moo tax yàlla daal di wax ci alquran yi inna allazina yuhibuuna an tashia alfaxishatu fi allazina amanu lahum azabun alim yàlla nee na ñi nga xam ni yàkkamtiwuñu yàkkamtiwuñu lu dul dégg nit wala xamal nit ci fakkastalu gu mu fakkastalu ci lëndëm nga jël lu bon loolu publier ko ci internet bi wala ci mbedd mi yàlla nee na ñu di def loolu nañu xaar seen wàll dina metti torop si ñoom képp kuy def loolu xaalal sa bis ndax dinga am bis koo lebal bis bu rafet mu fay la ko waaye koo lebal bis bu ñaaw mu fay la ko لما خابت الخريري وخرك جزيت من أعلق بي وده جزاء من يبني على أسه وكلت للحل كما كان لي على وفاء الكيل أو بحثه نحن كن نكون نك لغم اللبن تي تفعل نحن دنا على فايل تولنون لو من نقتل تي تنك تي لو باخ من نقتل لو تولنون دلو لو من نقتل تي لو بون من نقتل لو lu tol noonu delloo la ko am na ñoo xam ni nag dañ koy yokk moo tax loo lebal nit ci lu bon jàppal ni bis da ñëw dana la ko fay bu dee lu baax nag bu la koy fay nga kontaan moo tax bu ñu weerante sunu biir bu ñu yàqante sunu biir ndax loolu koy bakkan la kon ñaareel ba mooy àdduna àdduna def na la faas àdduna ñëw na ak i benki ñenkeem àdduna ñëw na ak i matérielam àdduna ñëw na ak i taaram àdduna nag yonent bi da koo fase woon teg ko nële Seydunaa Xalil bokkoon na ci ñu ko fase teg ko nële ndax daan na wax naan yaa duniyaa xurriya xayri yow àdduna demal nga wori keneen ko dul man ndax fase naa la fase moo xam ni dootuma la fay li ba mukk àdduna boobu nag moom la yonent bi ne adduniyaa sijinul muslim wa jannatul kaafir nee na àdduna mooy kaso jullit bi mooy àjjana yéefar bi li tax mu ni mooy kaso jullit bi loo bare bare bari alal interdit nañ la sàngara loo bare bari bari alal interdit nañ la njaaloo loo bare bari bari alal interdit nañ la sàcc te yooyu dafa bokk ci plaisiru bakkan bakkan dafa am ay bànneex yoo xam ni boo xoolee li mu bëgg lépp yàlla daf ko ko interdit moo tax mu ni wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil fay li mooy lan fa innal jannata hiya al mawa moo tax nee na àdduna def na la faas jóge nga ci bakkan bëri nga ak moom daan nga ko àddunaa ngi taxaw nga war a daan àdduna fan ngay jaar ba daan àdduna fan ngay jaar ba daan àdduna yan arme nga mën a utilise pour daan àdduna yan compétence nga war a am pour daan àdduna àdduna mi ngay bëreel est-ce que boo ko daanee du jëlaat revanche loolu lépp incha allahu taala dinañ ko àggale seen prochaine émission bii di ñëw incha allah jox nañ leen benn noon bi njëkk te mooy bakkan ñu jël àdduna def ko ñaareelu noon incha allah dinañu wax nan nga koy defee fas pour bëreek àdduna fan ngay jaar yan arme ngay am yan compétence ngay am ak ban taxawit ngay taxaw nan ngay préparer ba àdduna ci jëm boppam du la gëlëmal ndax àdduna noon la ci doomu aadama bokk na ci noon yi parce que day waraate Cheikh Hadji sax wax na ko daaru nawka wa jiifa nee na àdduna noon la boo xam ni këru médd la këru xaj la nee na xaj yi rek ñoo koy xëccoo neena moytul moytul bañ a dugg ci xaj yooyu nga xam ne ñooy xëccoo àdduna waaye waxil na nag waxuñ la nga toog croiser les ba àdduna ndax àdduna ak àllaaxira ñoo ànd defaral sa àllaaxira defaral sa àdduna waaye bàyyil xel ni àdduna du kër gooy sax kër la goo xam ni yàlla da fi indi pour laps de temps su la trompé nag ba nga jàpp ni sa kër la àdduna tukki ndax doomu aadama benn kër la am guy sax muy këram gu mujj muy àllaaxira ñu bàyyi ci xel bu baax kon insha allah taala émission bi di ñëw dinañu waxtane aduna ci carton suñu borom muy ñaarelu non bi ñettelu non bi ñu waxtane iblis buñ fa jugee ñentolu non bi ñu waxtane hawa muy ñent non yoy nga xamni insha allah allahu taala danañ ko waxtane ak yéen ci carton suñu borom kon nak li lañ leen indi won tay seen émission bi nga xamni moy xam sa diine ñu leen ci ziar bu baaxa baax delu wat di leen ci nuyu lu ci jub rek ñu xam ne fa yalla la lu ci deug rek ñu xam ni suñu ñàkk deg ak ñàkk comprendre yalla rek mën yalla rek mat yalla rek xam wa ma utitum min alxilmi illa qalila serigne ba talib ba dafa ñew ci serigne ba fekk serigne ba tok ñepp wor ko mu ni ko yow li ñuy soow sa xam-xam bi yépp ndekte lu tuuti la talibé juk narko duma serigne bi ñi leen bayiléen ko ñu bayiko mu ni ko lu tax nga wax lool mu ni ko yalla mo ne ci alquran وما أوتيتم من العلم إلا قليلا جوخما لين لودو لو توتي لو نيو تي خام خام لو نيو ناك بوكو نييب سيدوي كين كوني لا نتي ام دو باري سيرن ني لين واخنا دك باي لين كو كون ميغي نونو فتبارك الله بوكين فغ سن دند با جاب يا ام خام خام يا باري خام خام يالا ريك ام خام خام بو دوي سك دوم ادم لي مو ام تي لو توتي لا تي خام خام ndax limu xam bariwul xëy na sax li ko yàlla wënagum jàpp na ni xam-xam la waaye boo ko seetee du xam-xam ndax la métaphysique lu yéeme la lépp lu dellu ci wàllu àllaaxira xam-xam bu yéeme la te yàlla wax na ci alxuraan fala taalamu nafsun ma uxfiya lahum min xurati ayun jazaam ma kaanu yaamaluun te loolu bokk na ci li nga xam ni yàlla daf ko nëbb doomu aadama donte am na ñu mu may basiira kon yàlla ñu yàlla may ñu ànd ak modeste ànd ak souplesse xam ni lu am yàlla la lu ñàq yàlla la am yàllaay buur ñàq yàllaay buur nañu jël lépp delloo ko yàlla ñaan ko mu jéggal na sunu bakkaar yi nga xam ni moom la ñuy jot anticiper ñaan ko tamit kazalika li nga xam ni moo nekk suñu ginnaaw ñu fàtte ko bañ cee delluwaat li ne suñu kattan tuñ dëgmal ko yàlla def ci yiw def ci bark wa ma zalika ala bi aziz kon ñu jox leen dig daje insha allahu taala aljuma bii di ñëw ñu àggale noon yooyu nga xam ni mooru doomu aadama wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم